dajale fii tey mooy monsieur Dora gay nekk le coordinateur xëppe xool te loolu yaakaar naa boo ko waxee nit ki ci période bii ñu toll euh, mooy doon lu am solo moom it aussi bi ñu gisante ak moom mu recevoir ñu demb yaakaar naa yàggul matul 24 euh, 72 heures euh, boobaak léegi bi ñu gisee ak moom ñu waxtaan ak moom li nga xam ni mooy suñu problème muy jafe-jafe handicapé yi sule nañ ci ay points yu bëree bëri ñu waxtaan ci moom surtout nag ci problème mu carte d'égalité des ma daan wax rek Euh, président Macky Sall nit ñi am nañ ci lenn ci ay waa këram ñoo xam ne ñu ngi koy dégg mais dégluwuñu ko 100 pour cent euh, Dora nag bi ñu toogee ñu waxtaan ak moom jox ko information yi ak situation yi nga xam ne moom la ñu dund mu comprendre loolu jël ay responsabilité ci kanamu collaborateur am bi nga xam ne mooy monsieur Ndiaye mu jël ci ay engagement ak centre bi nga xam ne yàgg na ma taxawal ko depuis boobu ba léegi centre bi taxawagul am na ñu ci dugal seen loxo. mais gaa demeegul ni mu war a demee euh, Dora nag jël na ay engagement te li mu wax it gëm nañ ko parce que jëf ji mu jëf euh, moo tax ñu gëm li mu wax te it lu dul loolu yàgg na def ay activité ci région yi 14 yëpp mi ngi fi def ay activité ci turu plateforme bi ngir jàppale président Macky Sall président nag dafa soxla ñu mel ni Dora gay bu amoon ñu mel ni Dora Gaye li mu bëgg ci réew mi dana ko am surtout nag Touba gi parce que dafa am lu ñu présenté ci réew mi. 15 pour cent de la population kon am na loo xam ne mën nañ ko ci réew mi jëf ji door ngay jëf nag tax na ba ñun ñëpp mu convaincre nañu ñu euh, retourner incha allah rabi pour jàppale door doore ci plateforme bi nga xam ni mooy coordonnateur bi tey mi ngi koy doxal 100 pour cent loolu daal li ñu gënoon a intéressé ci loolu la bokk tey également gis nga 5 tonnes de yi mu jox ñu ko une tonne bi sëriñ ñi nga gis ñu daje fii sëriñ yi daara lañ ak ay imam ñoom laa fas yéene distribuer benn tonne bi 4 tonnes yi ci des ñu mi nga xam ne moom moo jot li ba mbir mi ñëw suñu loxo ah di santit Pape Seck mii di sunu doom di sant ñëpp nag di ñaan boroom borom tabaaraka taala ñii def lii yàlla na leen yàlla gën a dooleel kàttanal leen guddal seeni fan te yàlla may ñëpp jàmm te noo ngi ñaanit nag lii nu dal ba di ñu di dimbale ci nii yàllaay dogal waaye comme dalagut ku ne yàlla na da ci yàlla musal ci ndox moomu waaye lépp it noo ngay sant yàlla xam ne yàlla rek ay buur yàllaay borom lépp mooy borom fépp mooy borom lépp. gi goog sëñ Tuubaa gi ñu ñu jàppale ndax ay néew yu doole ay gan war a ñëw ci ñoom a ah, nga jàppale leen bañ mën a joti comme ñëpp ñooñee day wax dëgg yàlla xam nañ ne a ah, xam nañ ne day yàlla rek ay buur ndimbal ndimbal loo xam ne ci màggal gi la ñëw. te kenn ku ne soo sañoon say gan dañuy bëgg ba kere ñuy dem ndax maam sëñ Tuubaa moo ne lottu nañ ci sant sëriñ sant yàlla bay woo nit ñu leen sant le ñu koy sant li suñu borom kookee nag ku yàlla def sa xel maanaam mën a dimbale kooka ba xelam am ci mën a mën a sant li suñu borom maam sëriñ Tuubaa moomee wallaay pay gu rëy nga noone pay gu rëy noonu yàlla na li yàlla fay gën li ñu bëgg nag mooy ab centre ab centre daal mu dimbaleenu ci ab centre mu dimbali ci ndax fii ñu nekk fex dëgg yàlla ñu taxaw fii ñu taxaw amuñu fu ñu mën a waxat amuñu fu ñu mën a waxe amuñu fu mën a waxe waaw yàlla nañu yàlla suñu borom mi nga xam ne moom loxaam jot na ba mën a dégg président de la république mu dimbali ci ngir ab centre mu ñu financé ñu ñu am ab centre buñ mën a buñ mën a buñ mën fuñ mën di dajee lii suñu jooytu daal mooy loolu mooy moo ci gën a ëpp ginnaaw it nag yooyu màggal gi wax dëgg yàlla lu ci mën a am ñun daal Baye Sall mii nanu ko fonkal waaw Doora daal nanu fonkal baysaal Sall mii Baye Sall mii daal nanu ko fonkal ndax ñun xeebuñu ko wax dëgg yàlla te lu fi am ci département bi wax dëgg yàlla lii tund lii Touba gépp laa wax de ku fi nekk handicapé Baye Sall fàttewu la xaañ na nag daanu dajalut fépp waaye Baye Sall fàttewut kenn ku ci Baye yëg ay problème Baye Sall taxaw na ca waaw Baye Sall guddi ak bëcëg ku mu ci gis nga am problème mooy problème am waaw Baye nag ñu ngi koy sant di ko gërëm waaw oh, tey dañoo ñëwaatoon Touba euh, bi nga xamante ne ñëw nañ fi ci inondation yi euh, pour jàppale li nga xamante ne mooy population Touba ñu génn ci inondation bi euh, yàlla dogal nag bi nga xamante ne président mi ngi war a ñëw Touba dooro ci nim ko daan defee fépp foo xamante ne président war na faa dem mu xool porteur de voix ya fa nekk ak ñi nga xamante ne askan bi ci ñooñu lañ topp mu waxtaan ak ñoom xool vraiment lan mooy seen manquement mu jàppale leen ci. ci loolu la ñu rencontré le président Saliou Ndiaye nekk président des handicapés de Touba. Euh, vraiment di ci def liggéey bu mujj ayib euh, waaye biñ ko recevoir gis nañ ne handicap Touba am na lu bëree bëri lu ñu soxla euh, ñu ne ko daar daar ñun waa plateforme Xëppil Xool ànd ceeg le coordonnateur Doro Gaye dinañ ñëw jàppale ñi nga xamante ne ñooy handicapé yi bi mu fa ñëwee aussi sama sang bi wax na ko sàng défendre na li nga xamante ne mooy centre handicapé bu ñëpp mën a dajaloo vraiment di fa toog di mën a tënk li ñuy def ñu ne leen incha allahu rabi comme ni la ko dooro waxee ci bureau bi lépp loo xamante ne mën na koo def ngir jàppale handicapé Touba ci turu président Macky Sall. Mhm. dina ko def ndax moom lenn képp a ko ñor saabu président jugee mu jug ànd ak moom saa bu askan bi nekkee ci ay tolof tolof mu jug fekk si leen ci tolof tolof yi indi ci li ko ci yàlla may jàppale leen ba ñu génn ci. ci loolu la ñëwoon indi fi ay ay moto pompe tey ñu ñëwaat ànd ci ñi nga xamante ne ñooy association des handicapés te le président Saliou Ndiaye jiite ko ñuy lancer waat aussi un appel comme ni ñu ko waxee sànq lii nga xamante ne Doro mi ngi koy def ci askan bi ko def ngir jàppale ki nga xamante ne moom la fi yàlla teg muy président Macky Sall ñëpp war nañoo mën a jug def loolu ndax euh, am réew soo ci nekkee je pense que solidarité moo war a am suñu biir su fekkee ku nekk jug nga jàppale ña nga war a jàppale je pense que lu baree bari sax dootuñu ko xaar ci nguur gi ndax moom li muy faral di def mooy saa yu ma déggee tolof tolof duma xaar nguur gi indi saafara waaye su ma ko mënee damay teel a dem def ci saafara en attendant nguur gi di ñëw def ci saafara ci loolu lañ ñëwee ànd association des handicapés te incha allah collaboration bi ñu am ak ñoom day continuer ndax ki nga xamante ne mooy le coordonnateur Doro Gaye jël na engagement ci kanamu président Saliou Ndiaye ne dina leen taxawu dina leen taxawu ci ay denre alimentaires dina leen taxawu ci màggal gi dina leen taxawu aussi ba centre bi nga xamante ne boobu ba tey ñu ngi koy ut yàlla defal leen ko handicapé Touba yëpp mën fay daje vraiment ñu mën a jël seen avenir en main